Yes, euh, on est sur Yumble. On vient juste de descendre Manjalis avec l'équipe de délire urbain carapit.com. Et aujourd'hui, c'est spécial Yumble, ou urbain, c'est Yumble. Ni la population Yumble. Bonjour, bonsoir, salam alaikum, jokonjol, tout ce que vous voulez. Délire urbain sur Yumble. Eh, top moi. Nous sommes, nous sommes, nous délire urbain gis ngeen paya bii nii yow da ngaa reetaan lu yow it da ngaa xam laa bëgg yow may taasul yow nga rabal ma Petit Mbaye mooy mooy mooy nijaayam doom buru seen ak Samba Lobé Ndiaye Ngone Ndiaye boo ko waxee ni lajo jox ko ah ma waa eh waa yow yàgg bool foo jógee ah! <laughs> benn ki la woon benn béy la mu recc si ben nar, legi <laughs> bayi bi da recc nar bi top ko di dak dika dak dika dak mu bayi, lagi, bayi bi <coughs> legi bay bi dugg si ben ron auto nar bi sag dika jël chauffeur bi dugg ba tal auto bi te yegulen mu ne legi nar bi gennal mu ne ko duma genn mu ne ko wallahi duma genn nak sama bay mo fi dugg mu ne ko sa bay day nga mu ne ko duma genn sama metal kibi bi mu ne déet déet ah damaa juum de foofu la yem. oh oh oh oh mais c'est grave ça xoolal benn scooter moo daanu nii délit urbain lu nekk lay gis doo sax comprendre. dafa am ñu ñu seet si ay mbokk ay xarit et tout donc ñoom dinañu wax tuuti si yëmbal salaamaaleykum soxna Bintu Ndion. waaleykum salaam Jalil. lan ngeen ñuy euh, wax ci yëmbal. li war a soppi mooy lan leen rek wutal ñu ay tiwo. ay yoo xamante ni géej gi mi ngi fi tout près soriwul ndox mu ñëw jàll fa dem fa ñu yokk te tali bi comme ça dugg si bi kuy ñëw dugg si bi yomb jël tàllante yi éclairage bi loolu rek moo fi problème ñu ñu leen ñaan autorité seen bopp ñu wàcc sur le terrain xool li xew ci biir dëkk bi waaw li xew ci biir dëkk bi parce que yéen ma tamit mën nañu yaatu yaatu bu tax ba ba daal ñoom duñu mën a xam lu fi xew yaa ngi yëngu ci association bu tudd association Ñoofa d'ailleurs tu es la secrétaire générale de l'association est-ce que mën nañu wax seen action yi ngeen def à l'endroit des populations. L'association moom association bi mën naa bu mu ak 6 mois rek 5 mois te li fi jot a defagum am nañ ci ay sollicité ñu ñu sollicité parce que def nañ fi benn journée don de sang précédemment ak euh, consultation gratuite. def nañu tamit benn cérémonie officielle mais surtout si côté kii bi bi yow mën na mi dafa jotam moom sa kër. waaw ay at. ay at. waaw ah, ay juróomi at ndax presque deux mille deux mille ba léegi ndox mi dafa nangu sama kër. dañuy dig plan jaxaay bi ñu ko jox. maire bi nekk fi xamul fi ñu dëkk am na benn xale bu jigéen bu am ñaar fukki at juróom ci ndox mi la deewee ci sama buntu kër juste un message aux autorités aux bonnes volontés de soutenir ces gens-là parce qu'ils sont dans des moments désastreux, dans des moments difficiles et ils méritent bien d'être soutenus. Allez, allez, hey, eh, stop, stop, stop, hey, eh, stop, stop, stop, stop, galal. parfois doo dawal sareet ba si yàgg rek fas bi dugg ci rek am lu ko mat. ndox am lu ko gaañ wala mu am ay weñ yoo xam ne wala courant mas ko. courant man man nu muy yuuxoo bu ko dara baat. courant na fi sam fas. ouu day jege rek ne <laughs> yuuxu yooyu mooy loolu ma xool. <laughs> <laughs> rek kii xoolal benn accident la woon bu am jam ñaajoo kii man maa ko fekkee accident bi jam ñaajo la léegi man la sam waay oto bi benn sept place la. day daw ba muy yàgg rek ndeysaan man la sam waay oto bi këppoo léegi bi oto bi këppoo ndeysaan matériel yëpp tas moteur beeg lépp tegu nee benn paa man la sam waay moom reko ko ci dund saan daa jékki-jékki rek këdd fer bi génn xool xool paa bi daa yoroon benn wëlis ndeysaan gisul wëlis bi paa bi daal day ñëw ba xool moteur bi fi mu tegu rek ni cas moteur bi teg sa bopp ni heureusement ba ma jotee sama wëlis man foofu laa jaaree dem sama yes yow ban nga ñuy may. man dama lay may lépp bu garaaw benn paa la ah paa bi daal gaañ na moom ku toog ci bundu gaalam lay bañ paa bi jël gardien jox ko benn gourne bu mool na ko xoolal ku toog ci bundu gaalam rek dóoral paa bi toog ba benn heure bi rek mu génn ne day féexlu ci bundu gaalam it jamonoy tàngoor mu génn di féexlu da gardien bi dóor ko gourne bi ci bopp rek mu daw sangu bu mu xëyee suba xëy na génne cinquante mille jox ko gardien bi na ko xoolal demal dàq naa la waaw dégg naa sàcc bi de mais damaa la mus ñu ñu boole ci Yes, sir. Pratiquement, on a passé la journée ici avec les gars. On s'est marré, on a discuté et c'était trop, trop, trop nice. Et c'est ça, le délire urbain. À la présentation d'Alice, ça se passe sur www.carapide.com et c'est, je crois, c'est, c'est fini!